bokkeen tax na ti yaatal vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu dikk ak yéen ca léegi ne ñu daal di koy door nag Moustapha Diakhaté kàddoom yi ñaaw yoo xamante ni bii nag daal dina ne na fi député assemblée nationale moom moom mi nag di Moustapha Diakhaté bokkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar nag kàddu yu ñaaw yoo xamante ne bii daf koy yëkkati nag daal di koy teg nag ci kaw gouvernement bi nga xamante ne bii nag ñooy falu bees ci ministère de l'économie bi mi acteur du service bi mu doon def nag daal dina koy sol loolee nag moom Moustapha Diakhaté da ko doon ñaawlu ba fa ñaawlu yem di wax ne nag loolee jafe-jafe dëgg la nag ak réerte la <clears throat> ndaxte nag mu ngi jàpp actuel ko moom kenn waru koo wane nag ci loo xamante ne bii da jiite am mbooloo moo xamante ne bii wàllum politique rek moo tax nag ñu daal di leen di jiite nee na nag loolee mi ngi koy ñaaw lu baax baax waaye nag kaka tontu di Mbaye Guèye Sylla ca Darou Mouhty nag moo ngay wax ne nag kii moom di Moustapha jaxate xool bu bon képp nag la yore loolee nag moo ko waral nag muy jëfur saa su nekk di yekk nit ñi lu mel ne xëy ci loo xamante ne bii nag li ko nit ñi xamal moo ëpp foofu la mu xamal nit ñi xëy na kay jot gi nga xamante ne bii moom am na ko di dem ci télévision yi di wax nit ñi dañ ko ci du fekk rek waaye kii di mbam kii di Mbengue Sylla nag daal di daal di tontu nag ki nga xamante ni bii moo di Moustapha Diakhaté tontu lu weexaat nag di ko yamloo te di ko dijaat nag ci palaasam ngir mu daal di xam boppam moom Moustapha Diakhaté moomee tey yamale nag ak iñaanam ki nga xamante ni bii nag iñaan na ko jëmale ko nag ci askan wi